yaa xam ñoo fi ñëw ñoo jógee république islamique Mauritanie ci président son excellence Mouhamad Ould Cheikh Al bokk di kenn ci sëriñ bi di kenn fii ci Touba yow tamit di kenn ci yow moo yebal délégation bii ñëw muy président bu Mauritanie ki nekk ci sa wet si Mouhamadul Xattaari nekk consul ci ambassade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 bi riasati sidi Mouhamed Xataari min assifaara wa cheikh sidi Mouhamed Aminu wa maali al ax min idaarati tashrifat ustaaz Fuknaas wa cheikh Mouhamed Fall wa yaqum lakum yuxammilukum asma taxaayaahu al atira ila faxaamati rais sayid Mouhamed bun cheikh al Xaswaani risaala tayiba min axiihi wa waalidihi cheikh Mouhamed al Muntaqa wa yaqul ala kulli xaal laa daacati al aqdaam faqad taawadna minhu haza hadihi al makruma wa taawadna minhu haza saxa wala xarwa fa wafduhu walillahi alhamdu huwa kaana alwaxid alladi kaana yasilu ilayna fi ayaami saaba ayaami azmati korona wa dalika mima nusajjiluhu walan nansaahu lahu walan nansaahu li jumhuriyati islamiya al mauritania ala kulli xaal yaqulu lakum anna mauritania wa tuuba ka shey al waaxid ka al jismi al waaxid wa faxaamatu rais aljumhuria yumathilu zalika wa yaqumu bi zalika fi adna mustawa fa lahu min madinati tuuba wa min alxalifa al aam cheikh mahmad almuntaqa wa min annaatiq bi ismihi asna taxaya wa jami al irfan wa yashkurukum mujaddadan wa yaqulu lakum kullu aamin wa antum bi xeyr نعطي الأخ سيد خطاري إن شاء الله تعالى كلمة قصيرة والشيخ سيخرج معه إن شاء الله تعالى السيارة التي تعبر عن مدى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني ب أهل طوبى وبالمشيخة المريدية بصفة عامة وكذلك هي تأكيد لمستوى العلاقات والمستوى التآخي بين الشعبين الموريتاني والسنغالي ولا أريد أن أطيل عليكم وأشكركم